di ku yàgg a taxawu ay nit ci mbaaxuk yàlla ci wàllum ñaan dangaa am ay jafe-jafe ci wàllum këyit moo xam yaa ngi ci biir réew mi wala yaa ngi bitim réew dangaa bëgg sa bunt wër sa gën a gaaw a ubbiku dangaa bëgg bayrab njaay wala bayrab jigéen dangaa tëju cat dala sonal ndax lii ngay bëgg a dugg moo gën ci yow waaw wala déet sëriñ Ahmadou Mbàkke borom def gis dalay defal liste xaar wax la ni ngay def dangaa bëgg kaaraange ci sa bopp mbaa li la wër danga bëgg ku la jiboole ki nga nekkal dangay xëccu ay sànce wala ay marché sa yaakaar day faral di tas wala danga am yitte joo munta wax kenn ak lu mu mën a doon gaawal a gaaw jokkoo ak sëriñ Ahmadou Mbacke borom def gis ci mbaaxu yàlla sa aaju dina faj yàlla baaxee na ko mu yore ay jaaro yu gaaw ci li nga bëgg ak ay ndombo ci wàllum bayre wala sax tul gisee ak moom rek sa aajo faju daw leen gaaw gisee ak moom samedi ba mardi ma ngeen ko fekk Dakar Patte mercredi ba vendredi mën ngeen koo fekk fii ci Touba Darou Khoudoss wala sax ngeen jokkoo ak moom ci 77 690 82 74 77 690 82 74 yittey Serigne Ahmadou Mbacke borom def kiis moo di tàggale leen ak seeni njàqare dalal seeni xel. Serigne jëwriñ Ibrahima Diagne siyaar nan la. yàlla ñu sëñ bi boole yool bi. ñu gis ni Cheikh Béthio daan defee tey Serigne Saliou ndigal Thioune def nu nu mel wala lu ko raw tey ban yëg-yëg ngeen ci am. waaw waaw sant rek moom nii la ko bàyyam ba daan defee ni mu ko waxee nag yaa ngi ci waa Touba rek ko moom yu murit ñoo ko moom moom la sëñ Saliou noonu sa màggal mooy sama màggal daaw boo seetloo lii li li sëñ Béthio yàgg wax sëñ Saliou wax ko ko mooy ku sant yokku daaw ni mu demee woon boo ko gisee ren malgré ni mu demee dëkk beeg feebar beeg yooyu taxul nag yi gën na fee yokku te ba tey ji daara dimanche dafa war a dem jëndiwaat ay nag ngir euh, Touba ak dayoom ak ñi Serigne Saliou ni ñoom ñu ko yittewoo lañu daa mel na bis bu ne nit ñi ku nekk nan ka sama koñ war na am loolu boo toogee moom di nga gis ni bàyyam ba yitte ja mu daan def si nit ñëpp lekk ñëpp am nag yi fi yaatu ju ko la si def donc ñu teewaat ko waaw ak ndigal li xam nga rek mesures barrières yi tax na ba.